dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi ko di jeex xëy ci woppi coronavirus ka jafe-jafe yi nga xam ne maanaam andi na ko ci réew mi soo muy tuulee dina jóge ci réew mi ay jafe-jafe des fi ndax li nga xam ne nemmeeku nañ ko ba wopp ji commencé ci réewum Sénégal ba léegi am na nag ñoo xamante ni daal maanaam dañuy stigmatiser di boddi di daw ñi nga xam ne ñoo amee woppi coronavirus ci Sénégal dangay ngay amee wopp ji ba wér sax maanaam ñu lay daw ak di la teggi mbedd moo jaar duñu fa jaar léegi nag dem nañ ba nga xam ne képp koo xam ne woppi coronavirus moo a rey ñenn ñi sax dañuy lànk ngir nag ñu daal leen di suul ci seeni sëkk mu nekk loo xamante ni lu doy war la journal bi nee na nemmeeku nañ ko fan yi nga xam ne moom la ñu génn maanaam ci Malika nemmeeku nañ ko ci Sikambaaw te ñi nga xam ne ñoo ko doon bañ ñoom xamuñu ba xam wopp ji dina leen dal ba ñuy faatu sax ci wopp ji loole nag maanaam lu jara tey la te état bu Sénégal moo war a jël ay matukaayam ci mbir mi réew moo xamante ni ñenn ci askan wi pare nañ ngir rey nit ñenn ñi pare nañ ngir yàq nit ngir sosol nit ngir liggéey nit loole nag maanaam tegewul fenn réew mi quotidien ci xëlim ak Assane xëy di samp ab laajte nañ ñi nga xam ne ñooy jëf ji la jëf xamoo ay nit lañu wala duñu ay nit yéen kaay gi nee na waa ministère de la santé ñoom dañoo waaru ci mbir mi ndax ñoom nee nañu askanu Sénégal ñoo doon wax ne senegal yi faatu bitim réew nañ leen andi ci réew mi léegi nag ñooñee état bu Sénégal nangu na leen a ci réew mi ñiy faatoo ci réew mi ñenn ci askan wi lànk ñu bañ leen suul ci seeni sëkk loolee kenn mënu ko comprendre dem sax ba yàq oto yi sapeur ak oto yu croix rouge yéen kaay gii di mu ñu xamal naa ñu lii nag yëfu caaxaan dëggantaan la te nguurug Sénégal ñoo si war a jël ay matukaay la yéene kaay mu ñu xamal naa ñu ñi nga xam ne ñoo doon def ñaaw téef ya maanaam ca Sicap Mbao ñooñe nag am na ñeenti nit ñoo xamante ni teg nañu leen si loxo Al Hassan Sall gouverneur bu dakaar la mu xamle nee na jëf ji nga xamante ni gis na am ñu ko jëf maanaam du jëfu sénégalais du jëfu nit yéene kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal naa ñu ñenn ci askanu Sénégal jamono ji mer nañu ba maara maanaam seen yaakaar na ndax li nga xam ne moom la état bu Sénégal waxoon ci lu jëm ci wàllum dund gi ba léegi nii furaas dali xëdde na ndax Dakar di Rufisque di Thiès di Kaolack di Linguère ak feneen ak feneen ba léegi nii gisaguñu ceeb maanaam gisaguñu lenn ñenn ci askanu Sénégal bi leen waa Vox Populi laajee ñoom dañoo jàpp ne état bu Sénégal da leen a ñenn ñi nag dañoo jàpp ne maanaam xanaa mbir mi dafa réer ci àll bi ñenn ñi jàpp ne nguurug Sénégal dañoo séddoo xaalis bi yéen kaay gi mu ñu xamal naa ñu li am ba des Mansour fay mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowu moom daal nay wax ne ñu wàccoo ak li nga xam ne moom lañ waxoon maanaam loolee lu jafe-jafe la yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu ci week-end bi maanaam moo nekkoon Pentecôte mu nekk téeméer ak fanweer ak ñaar édition pèlerinage marial Popenguine ñu waroon ko amal waaye nag reen jii du bëri nit li ko waral mooy woppi coronavirus ji laas yéen a kaay mu ñu xamalaan ñu Mamadou Talla mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu digg doomu mi maanaam ma ngi peer njaay jàngalekat yi rendre na leen hommage maanaam jaajëfal na leen Mamadou Talla daa di wax ne jafe-jafe am na ngir nag daa di déplacé wu nag loolee lépp jàngalekat yi muñ ko yéen a kaay gii mu ñu xamalaan nañu transporteurs yi ñoom jamono ji mer nañ ba maara day taali nee nañu ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñuy dund maanaam moo gën a metti coronavirus yéene kaay gii di la turbine mu ñu xamal naan ñu transporteurs yi bay boo ñu gën a muñ ndax nag soo moytulee maanaam nag dañuy yokk li nga xam ne mooy état d'urgence bi couvre-feu bi yéene kaay gii di Sud Quotidien mu ñu ñu en tout cas Macky Sall li ñu koy interpeller bëri na ñaxtu yi bëri na fenn fu nekk lay ballee yéene kaay gii di Les Échos mu ñu xamal naan ñu cadre yi nga xam ne ñoo nekk Senelec ñoom nag seen càkkutéef jamono ji nañ koy am am ndax contrat bi dox diggante Senelec ak ak Akilee ñoom ñu jàpp ne ay loxoore ki njaaxum daf saa am loolee taxoon ñu dem OFNAC dem ARMP jamono ji nag journal bi nee na waa OFNAC ak waa ARMP maanaam ñoo ngi lëmbët contrat bi nga xam ne Makhtar Cissé moo ko siifee woonam yéen kaay gi di direct news xëy nag ci maam buy maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne maanaam kenn ku nekk xam na taxawaayam ci Sénégal ak jalooro yi nga xam ne def na ko ci la journal bi ñëw rendre hommage maître Abdoulaye Wade wax ay jaar-jaaram wax li mu liggéey ci réew mi réew mi quotidien mu ñu xamal ñu Premier League maanaam Premier League sa Angleterre dana daal di commencé fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bu dee Italie fukki fan ak ñett ci weeru juin stade yéen a kaay xëy di samp ab laaj nee na woppi coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne andi na ko ci àdduna bi ndax Coupe d'Afrique 2021 lu mën a nekk lay doon